waaw ah, dama ay eh, couette drap yu ma yu ma koy fóotal moom laa jël si woon waaw ñu waajal ba ah waajtaay moom kenn mënu koo wax li nga li sa li ci xol kenn mënu koo wax dañ koy day feeñ ci jëmm yeeg lépp rek lépp ku sañoon soo xëyee suba ngoon jot lépp looy def ngir sëñ Touba rek da koy def ñun ay taalibe lañ yoo xam ne sëñ Touba la dund fas yéene ko bégal Euh, santale ko bés bii nga xamante ne dañ ko ciy sargal di ko sant di bésub sant nga xam ne loo ci def rek doyut yaa ñi ñi nga commencé ca tabax ya commencé euh, ca peinture ba ca karale ya ca defar néeg yaak douche yaak yëpp ba bés bi ñëw nag ñu soog a nekk nag ci benn yi ñu gis tey bi dina xaw a tax a te ministre bi ñëwoon na fi wàññi njëg yi loolu baax yi ngeen koy yëg bu baax a baax ñi ciy sant yàlla bu baax ñun bu ñu wàññee ñu bañ a wàññi la ñu xéwali sëñ Tuubaa yi ñuy defal <laughs> ñun ñu wàññi moom du dara ci ñun <laughs> bu ñu wàññee ñu bégee bu ñu wàññiwul ñu bégee Cheikh Fall lu sëñ Tuubaa indi moo yor xéwali te jox nañu ko te lu ñu jox ñu def ko ñun sant bu baax a baax tey ñaan yaa ngi ñëw gan yaa ngi ñëw tàmbale nañu ñuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla sëñ Muntaxa sa borom yàggal kofi fi guddal fanam wéral cëré mi yàggal fi am di Fall moo du benn bi nga xam ne mooy xalifa général des Baye faal ak njabootam gépp nag ak képp ku ko yéene ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér gi ñaan ñu màggal ko téeméer at fukk yu ànd ak jàmm ak xéewal ñii ñëw na ñëw ci jàmm fekk fi ñu jàmm ñibbiwaat ci jàmm kenn dara bañ a kenn bañ a loolu la ñuy ñaan jërëjëf suñu yaay waa kay balaa taw bi di jafe soob sa kaw jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar yéen waa mbokk Assalaamy TV di ziar tamit euh, sama mag sama sama lépp euh, soxna Ndiaté wax dëgg yàlla boo xoolee fii ci pressing bi wax dëgg yàlla ambiance bu jovial moo fi am waaw boo ñëwee dinañ la dalal dinañ la yaatal wax dëgg yàlla waxtaan ak yow kafoore et puis maanaam seen prestation de service moom wax dëgg yàlla man macha allah laay wax dëgg yàlla macha allah ndax man mii di wax ak yow personnellement man fii laay fii waaw màggal gis nañ gis nañ euh, ay ay ay ay di jaay ndox di jaay café Touba di jaay siikër dafa mel ni dafa am alimentation ci waaw soxna Ndiatta moom wax dëgg yàlla moom moom moom moom ah. moom moom lépp la daal waaw moom li gars yi di naan jigéen ju mën góor moom daal moo nekk ni wax dëgg yàlla comme ni ko gisee lu mel ni ay collation dafay am moo xam collation chaude la wala froide lu mel ni ay kafe xeet yooyu yëpp daf fi am di seral tamit ndox yeeg yooyu yëpp da ciy am wax dëgg yàlla yaatu na daal dafa def diversification daal. mais ci biir màggal gi euh, nan ngeen ko yëgee ba xam client yaa ngi ñëw 5 5. waaw alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant bu baax di ñaan nag suñu borom xeeb doole wax dëgg yàlla ndax njaate moom wax dëgg yàlla njaate ñëpp la. waaw man dama am ci benn bërëb boo xamante ne fa laay yëngu wax dëgg yàlla pour ne pas faire de publicité quand même waaw du wax tur bi wax dëgg yàlla waaye moom. looloo tax daal ñu xamante jamonoy chantier ba léegi ba man wax dëgg yàlla macha allah fii ma nekk nii man ci famille bi laa bokk. dëgg yàlla. merci beaucoup sëñ Moustapha Sène euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax mais instant bi euh, li ma lay mujjee laaj lekk mooy euh, promotion de màggal ba xam yéen a ngi koy def. bu baax a baax bu baax a baax ndax boo xoolee tey daanaka lu ci ëpp tey ci liñ doon def ci tarification wàññi nañ ko bu baax a baax te boo xoolee tey ci parages yi fii nii yëpp moom rek moo fi nekk pressing boo xamante ne fi mu toll nii ba actuellement nii mu ngi jël clientèle. boo xoolee voisinage bi ñi fi nekk ñëpp daanaka ñoom ñëpp dañoo baare waaye wax dëgg yàlla moom dafa nekk koo xamante ne day bàyyee xel ñi nga xamante ne ñooy voisinage bi mooy clientèle bi ndax dañuy dem ba baare lu yàgg sax waaye ndeysaan xameel geek wax dëgg yàlla ak yëg gi mu yëg clientèle bi mooy tax des fois day def ay sacrifice di def ay nuit blanche def na ko fi du benn yoon du ñaari yoon waaw te man li may wax man seede laa ndax man fii mooy sama deuxième kër Moustapha Seck ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw kay jërëjëf maa leen di jaajëfal. merci beaucoup. mbokk téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di nuyu DJ Massamba maa ngi lay ziar di nuyu waa Assalaamy TV yëpp. di nuyu kullum kuy euh, seetaan sunu télé bi di déglu sunu rajo bi sur 99 euh, point 0 di nuyu waa cliente Ndiathé Pressing yi. <laughs> tey ñu maanaam Ndiathé Pressing mi ngi ci entreprise am ci wàccaay màggal gi lan mooy seen liggéey. waaw di kontaan ci seen doxantu bi ngeen def ba fekk ñu ci liggéey bi macha allah sant rek euh, dalal gan dalal gan yi paasewul fóot rido yeeg couette yeeg drap yeeg tout te macha allah maa ngi ciy jàpp lu ma mën clients yi lu ñu indi ma fexe ko euh, def ci njëg bu yomb fexe leen ko livrer ci nu mu gën a gaawee foofu daal laa taxawee fi mu ne. Mhm. ayca kon waaw ñu ngi ci tableau hôpital Jannatu Maxwa en face. Euh, palais Ndiouga kebe sur la lout de euh, Tali Ndiouga euh, donc euh, bu fekkee da nga jógee corniche ñu ngi lay féete sa droite bu dee da jóge jógee police ba ñu ngi lay féete sa gauche dend ak kenkaay yëri bi voilà. merci beaucoup soxna merci beaucoup maa ngi leen di jëfal bu baax a baax. leen nuyu di leen sant di leen gërëm di remercier seen teewaay bi franchement ah gars ñi soble bi waaye mooy loolu de. <laughs> soble moom wàññeekul xanaa mu gën a yokk rek waaw saaku dix mille lañ koy jëndee di ko jaayee kilo cinq cent walla nga jaay ko quatre cent vingt cinq quatre cent cinquante mais ñun instant bi nii moom lañ koy jaayee boo nee da nga koy jaay yeneen prix client yi tamit dañuy daw euh, waaw soble am na mais daa seer daal daa moom waaw franchement ah, nag xam naa màggal bi moo waral lii quoi moo tax ñu yokk waaye dañ li ñu yokk tamit daa ëpp trop ëpp na moom non pomme bi moom daa yokk yemuñu yemuñu prix pomme de terre kilo six cent lay jar bi ay yaakaar naa dix-huit yooyu nag waaw. a ngay bi ci ah, war na si wax de war na si wax moom ndax lii moom ëpp na moom. waaw ba léegi gisuñu dara gisuñu dara ndax ñun moom bu ñuy détaillé sax. client dañuy woo ba sonn seen marchandise daa di daa seer daa seer te ñoom na ñun ñaar lañ ko jëndee fee. merci beaucoup ni ngeen taw bi. ah ndox taw bi moom mooy loolu gis nga fii yëpp daa fees ndox taw bi mooy loolu bëriwul waaye su tawee moom yoon bi yëpp ay kii daal. déet yaa ngi jënd si waaw client ngi jënd moom normal ñu ngi jënd normal moom. franchement. dool ziar bu baax ñu lay fay ñu ngi nuyu tam yéen fi ñëw mm-hmm. leen ziar bu baax a baax. wàccaay màggal gi nga gis ne euh, yéen ngi jaay yi nga xamante ne mooy wàllu euh, lu ñuy naan ay canette ki ndox ak ay fruits euh, ba xam njëg li xéewale na wala. waa njëg li moom xéewale macha allah ñoo ngi sant baax yàlla bu baax baax mu ngi xéewale moom. waaw fi yemoon la yemoon ba léegi moom. Mm-hmm. waaw. 15 mu ngi jël 7500. waaw mm-hmm. mm-hmm. prix bi fi la yem moom. waaw ñoo ngi ñëw bu baax a baax. tey bu ngeen noonu nekkul benn jafe-jafe lépp xéewal moom instant waa xéew ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. Mhm. rawatina si màgg sëñ Bàmba bi. Mhm. ñoo ngi si gis suñ bopp bu baax ñun jaaykat yi. Mhm. merci beaucoup Nabou. ok rien. Euh, sëñ bi ñu ngi lay. waaw ñu fay. ñu la nekkee di préparer wàcc ay màggal. waaw nekk ci nii rek xam nga rek moom métti na trop mais sant yàlla rek. waaw sant yàlla waaw ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw bu baax a baax waaw ñu commencé fanaan man na vingt jours yaakaar naa de waaw vingt jours yi daal fanaan non non ñun moom fii moom boo fi ñëwee moom soobee yàlla moom ay taareel ñëw yooyu yooyu nekkuñ ci moom parce que ñun dañoo respecté kii daal rendez waaw xam nga bisub sëñ Tuubaa moom dañ ci war a jàpp bu baax moo tax jàpp nañ ci bu baax a baax a baax surtout nag suñu client yi xam ñoo nekk Dakar jàppale na leen bu baax a baax a baax dëgg yàlla. waaw waaw fi xam fi moom mooy Kawsara Couture euh, téer bi mag bi kon xam nga kii moom fu nekk la client di jógee fu nekk la client di jóge pour ñëw fi kon nag moo tax ñun lu ñu mën a def rek dañuy jàppale client non loolu nag bu ñuy remplir courant pour waajal màggal gi. dana am mais nag nekkul toujours waaw nekkul toujours mais ñi ngi sant yàlla fi